mënuy dox ba nga daanelaat ko pour que yeesalaat ko parce que tàmbali yére bi lu mu taaru taaru taaru lu mu rafet rafet rafet da ngaa jëkki ba si yàgg yére bi ci boppam commencé di firñitu fii li di benn par benn kon ràpp baa ngi ñëw moom xam bi mu xam loolu moo tax wér bi nga amoon démb am na âge yoo xam ne boo fa duggee kantan nga nga amoon ak mën day la nga mënoon mënatoo ko la nga amee woon jot diggante fii ba kër Limaamu Caw ci benn cinq minutes wala deux minutes nga waaxu nga waaxu tàng am na age boo xam ne boo fa tolloo dëgg-dëgg dootoo ko mënati. Hmm. te fekke benn xale bu ndaw mooy la romb di daw gauche ak droite mën naa dem cinq fois sa kaw nga xam ni yàlla daal li ma joxle may waaye da koy appelé soxna si nag jëkkëram ji di xaw la toog ba mu nekk ko nekk yow daal xool naa ba xool mais bis ni ko tey daal dama lay xoolee comme li nga xam ni mooy sama yaay ji ma jur xam nga loolu wax la boo xam ne bu ñaaw la hmm. ndakate boobu euh, xel bi nekk na ca leneen mooy ñenn ñi li ñuy def bu ñu ànd ak yow ba commencé doyal ci yow faw ñu lay provoqué ak di la wax wax yoo xam ni doy waar la waaw nga xam ni dalay day tax ku jigéen ki la mu bàyyi woon àddunaam yépp féetuwu ci yow di la tarbiyu di la toppatoo di ànd ak yow ci ngor di ànd ak yow ci lislaam bi kon dimit jigéen suñu borom fii day taxaw jox ko la nga xam ne mooy àq ak yelleefam mooy droit alaa la am na àq yelleef yoo xam ne lislaam ba mu ñëwee moo ko jël daal di koy jox jigéen léegi nag wa kii mu ne moom mi ngi jàmbat ba kii mooy jàmbat xam nga soo xoolee ñaari ñaari ñaari baat yi am na digg dégg bu ci am tujaadiluka mi ngi ñëw di la kalaame ci kan fi zawjihaa ci jëkkëram waaye nag wa tastaki ilallah maanaam lay faj soxla ba nag du yow yàlla la parce que boobu atte yi ak na muy demee moom moom yonent bi alayhi salaam dafay toog xaar ba yàlla nii ak nii la mu niital ko yoon bi mu jël message boobu wàccee ko ci li nga xam ne mooy doomu aadama yi mu nekk nag wallaahu wax ka ni yàlla de yasmau imaam fii ñu bëri ci mel ni man dañ ciy juum ndaxte ñu bëri naan yasmau dana dégg xam nga boo nee yàlla dana dégg diggante bi am na benn retard fay am yasmau dana dégg kon day mel ni yàlla pour mu dégg dafa am benn temps bu muy xaar pour information bi daal di jóg déedéet yes mawu dégg na dégg na lépp ñun ñu am problème benn information luy toog di xaar mais yàlla moom information bi moom mu am na mu amee lépp xam na ko waaw parce que fi mu toll nii misaal bi mooy soo nee yes dafa mel ni misaalu ñu ngi dégmal élection kan mooy falu nan lay demee ñun ñu fi toog ñëpp. xamaguñu déedéet dañu waxante dëgg rek kii bu falee ki ñu fal bu ñu ko falee gouvernement ma ñan ak ñan ak ñan ak ñan lay samp kan ci ñun moo mën taxaw teg programme bi ah, dina ma jaaxal de mais yàlla moom <laughs> loolu yëpp xam na mu ne wallaahu yàlla yasmaw dégg na taxaawarakuma seen waxtaan yi ñaar mooy seen dialogue inna allaha naka yàlla lu koy dëggal inna allaha naka yàlla samiun aji dégg la kon moom dégg na lépp xam na lépp kon ñoom ñaar xawlata bintu sallam ak jëkkëram aws ba ñuy jàppante ak wax jëpp yàlla nee na boobu man man dégg na ma lépp te avant muy am xamoon naa ni lii dina am